appelub laayeen bi ñu génn ci atum 2024 gi démb la ak barki démb yaa awa rasul ni mu ko baaxoo defee defewaat na ko ni ni mel moom mi di yaa awa rasul ci këram ga ca Nord Foire amale lépp appel daal di fay dajale ay xaritam am di jàmmam soppem yi nga xam ne xamante na ak ñoom ñoom ñëpp kenn ku ci nekk teewoon nga ci boobu lépp bis ci kaddu yi mu doon yëkkati moom yaa awa rasul ci la daal leeral kaddu yi nga xam ne ñu bare bare ñu ngi koy jokkalante ci réseau social bi ak di ko ko jëwee ko nguróom too ci suuf suufu mooy ab sëriñam daf koo daal di dàq ca xàcc ne ko bokkatoo ci sama yëf moom yaa wa rasul leeral na li ni mel nee na lu ci bare bare ay polémique la nit ñi nag bu ñu la sànnee xeer mënuñu mënu laa dal ñu jéem laa jot mënuñu laa jot faw ñu jaar fu gën a jege ci yow ngir yàq la waaye man mënuñu ci man dara damay wéyal sama yoon ki ma gëm gëm naa ko ba noppi man bàyyi laay mooy sama sëriñ samay ñaari jur ñaanal nañu ma te lu baax loolee dama cee sax te kenn duma ci jëlee man jaaw arasul lenn kott la ñu ma xamee mooy liggéey gëm sama bopp kenn xamuma ci ay caaxaan kenn xamuma ci ay naxasaka nang mbaa ñu xam ma loo xam ne demul ngaa yi Rasoul tontu na ñi nga xam ne ay polémique la yëkkati saa su nekk di ko teg ci kaw deram bi lee polémique bi fi doxoon digganteem ak Sidi Diop moom yaa awa Rasoul ak Sidi Diop dindi nañu ko ba mu set wecc démb Sidi Diop waykatu banlieue bi dem na ba ci kër yaa awa Rasoul daal di dajeek moom ñu échangeante ay kaddu kenn ku ci nekk nuyu sa morom waxtaan ak ñoom ñoom ñaar kenn ku ci nekk daal di ngay wone kanam gu leer ci sa kanamu morom ñu bare bari itam di ko tuddee les ex amoureux daal di nañuy dajewaat maanaam ñaar ñu bëggante woon ba àgg ci loolu sa moroom jër daal di daje waat donte ni sax am na lu bare bare lu doxoon ci seen diggante ci ay polémique ci ay coow jàppal bàyyil ci birum showbiz waaye bu lislaam soxlaa ñoom ñëpp dañuy daal di daje wanante li nga xam ne moo di jàmm ak tawféex ndaxte relation yooyu lañ leen xamee moom di Diop ak Yaa Awa Rassoul daat nañuy delloo buum ca mbooy mbooy ga muy mbëggeel ga ñu leen xame woon daal di nañ koy fësal niki démb ci appelub laayeen bi Abba No Stress fësal na mbëggeelam ci yaayam yaay ji itam daal di ko koy delloo ci benn vidéo boo xam ne Abba na woo yaay ji ci appel ba noppi itam di ko njaay cekke di ko xamal ne ko yaay yow sa bëggub xaalis gi doo ko mës bàyyi mu ko yaay ji ne ko man de xam naa ni tàmmal nga ma loo xam ne danga maa sax du ñetti fan ñeenti fan waaye benn fan wala ñaari fan boo ko toogee jàpp ñeenti fan danga ma yebal daan da ma yónnee lu toll ci fukki junni yoo xam ne danaa ko mën a jëfandikoo moom Abba Nostra ci lay njaay cekkanteeg yaay ji yaay ji itam di def ci moom témoignage di ko xamal ne ko nit ku baax nga nit ku yaatu nga nit ku yiw nga soxoroo jamono jëmuy wax loolu lee daal di sëgg tàmbali di jooy moom yaay ci la dog vidéo yi moom ak Abba ndax jooy yu métti yi nga xam ne jooy na ko ngir xol bu tooy oustaz Mouhamed Mbaye ba ci seen TV moom daal dinay axtu caaxaankat yi nga xam ne dañuy faral di ñëw ci appelu Laayeen bi mu ne képp koo xam ne ab appel danga nga ciy ñëw ngir def fi ay caaxaan ci sa bopp lay këppwaat ndaxte te laay la mu liggéeyal suñu borom lu leer nañu la ñi nga xam ne itam dañu fee ñëw ngir sàkku si ab yiwu danañ ko fi amee képp koo xam ak taalibe dëggantaan xeeñtu yi fi suñu borom di nga ko fi fekk ndaxte fii ci jàmmalaay ba ci yoof wala sax ca Cambérène foofa dem di nga gis suñu borom di nga yëg suñu borom di nga dund suñu borom te itam sa xol itam dana delluwaat ci suñu borom te itamit nag sam xel dana delluwaat ci dee lu bare bare di nga ko fàtte ci àdduna moom oustaz Mohamed mbay nee na ñi nga xam ne nag ay caaxaan moo leen taxaw nu jug ñëpp lu ñu ci góobe rek nañu ko daal di gar la ñuy ut si fii danañ ko daal di am ba mu jeex tàkk am na ci loo xam ne nag su ko waay defee sa bopp rek lu waay mbay ne la ko leeralee Dieyla ma ngay waajal ak delluseem ci kaw seen bi moom bi di Dieyla artiste chanteuse bi nga xam ne ca seen petit la bàyyee ko ginnaaw bu mu fi defee ab carrière boo xam ne carrière bu doy waar la ay singalam ñu baree bari dañu koy faral di bàyyi xel saa bu Dieyla génnee ñu koy def TikTok di ko challenge ak di ko toppandoo ay kilibam ñëpp a koy seetaan ay woyam itam ñëpp a koy déglu ndax neex ga muy neex na mu koy liggéeyee ak professionnalisme ga mu cay àndal moom Dieyla gëjoon naa yéegaat ci kaw seen bi ginnaaw bu mu tolluwee ab diggante am doom ci diggante bi waaye ci jamono ji lee gis nañu jëlaat duggaat na ci biir studio di tàmbaliwaat di liggéey ci benn mbir moo xam ne mu ngi ko war a génnewaat muy single bu doy waar bu mu nar a tegaat ci loxoy melemaan yi ak ñi nga xam ne ay fan su jëlaa lañu jëlaa ma ngay waajal lu rëy rëy bis bu ko génnewaatee dana defati buzz ci Sénégal ndax yàgg na ba mu yégatul ci kaw seen bi yàgg na itam ba mu raaree di toppatoo borom këram di toppatoo boppam ndaxte dafa toll woon diggante ba noppi am doom ci diggante bi di toppatoo doomam ngay waajaat dellusiwaat ci kaw seen bi ci boobu lépp jamono moom Clara Gueye jabar ci Doro Gueye ma ngay arrosé ay euro yu takkoo takko ki nga xam ne moo di Mor Thiam taasukat bu mag bi ci réew mi Clara Gueye daal dinay dajek moom ci benn xew boo xam ne Mor Thiam mu nga ko tiim di ko bàkk ak di ko keñ Clara yëkkati ay bee euro yu bare bari di ko ko may nit ñi yiw leen yore seeni téléphone kenn ku ci nekk di jël ay vidéo loole mu ngi firndeel ni Clara gay ku mën a xaalis la waaye Mor Thiam itamit nag mën a bàkk nit la nekk loo yoroon di nga ko ko yebbil Sidi Diop yebbi na ay kàddoom ci ñi nga xam ne dañoo jàppale Sidi Diop warul woon a dem kër Wally Ballago Seck di ko jaale ndaxte showbiz mayu ko loolu le su fekkee bëgg na neexal showbiz bi warul woon a dem di jaale ak di def yëf moom Sidi Diop nee na loolee ñu koy wax duma leen tontu lenn daal xam naa ko mooy dem gi ma dem ci Wally Ballago Seck daal di koy jaale sama warteef laa def defuma lenn lu dul li ma war ndaxte man su ma nekkoon ci place am moom Wally Seck dafay bàyyeekoo fa mu nekk fekk si ma mel nag du ma leen toppatoo du ma leen faale ndaxte yi fi àdduna àdduna la yem waaye am na loo xam ne su xasee ba am kenn ku ci nekk jàppal sa morom te jàppalante loolee kott mooy li ñu fi bàyyi su xasee ba jeex rek jeex na Sidi Diop wax na waxi nit ba noppi itam riij place ñi nga xam ne dañoo jàpp ne Sidi warte seppeeti jéegoom dem ci Wally Ballago Seck ci ma dem ci anniversaire bu Demba Guissé bi nga xam ne moom la doon amal ca place du souvenir Titi woykat bu mag bi lee laal yoon daal dinay toj ba ne mës na mësuñu koo gis ci Sénégal gëj nañu koo gis ci Sénégal titi waykat bu mag bi Demba Guissé waykat bu mag bi wane nañu seen professionnalisme ni ki démb wane nañu itam seen xam-xam ci wàllu way wane nañu itam seen expérience gi ñu am ci kawub seen ba ñu fa yéegee ba daal di def seen duo titi ak Demba Guissé fans ya nga xam ne ñoo teewoon ci boobu lépp anniversaire ñoom ñëpp jommi ngir professionnalisme mën-mën nga ñu fa wane aay ga ñu aay nañu ko doon defee ak na mu neexee ñëpp tax na wax ji mu wax moom la ñëpp di ngawti ngawtee jamono jile ci réseau social bi moom mi nga xam ne moo di journaliste bi la foofu la ca 7TV fa la daal toog def ay révélation nee manifestation yi nga xam ne moom la ñu weesu bépp bakkan moo xam ne da caa rot ñu naan bal mooy li ko rey jàpp leen ne takku der yi laale wuñu ca taqe wuñu ca nañu leen ca keccat ba ñu set ca wecc ndax ña fa nekkoon di dóor ay balu fetal bokkuñu ci biir ñi nga xam ne ñoo di takku der yi ñ fa nekkoon dañu leen a engagé te ci boppam ñoo leen engagé ngir ñu nekk fa di dóor ay balu fetal ngir mën a gën a een takku der yi gën a xeex ak ñoom waaye force de l'ordre yëkkatiwuñ benn bal di ko jagleel ci population bi mbaa di ko dóor ci kaw ay ndaw moom Maïmouna Ndour Faye seetal na ragg na ñi nga xam ne ñooy takku der yi ba noppi itam taqal ñeneen ñoo xam ne kenn xamu leen kenn déggu leen kenn gisu leen te ñëw ñëwee itam kenn xamul kan moo leen engagé kenn xamul itam ban jubluwaay la ñu ci am waaye moom wax na seenub jubluwaay lenn kott moom lañ ci soxla mooy xiirtal ndaw ñi ci ñu génn xeex xiirtal ndaw ñi ci ñu génn caxat caxatee réew mi ak tekk tekkaral gi nga xam ne moo am ci réew mi a ba mu waxee ba àggal ña ca commentaire yee kenn ku ci nekk yaa ngi ko ca yekk musiba ak melengaan ñenn ñu ci nekk ñu ngi koy xamal ni ko Maymuna li ngay wax seet ci sa borom Maymuna li ngay wax xoolal bu baax fi nga koy waxee ak ni nga koy waxee ay bakkan yu faatu la am na loo xam ne boo cay wax na la na nga am lu la leer ba noppi nga soog caa wax waaye booy wax di làmbatu booy wax te li ngay wax amuloo ci benn preuve lu la ca fekk jëlal George Clooney mi nga xam ne ñëpp ko xam ci Sénégal George xaalis bu bari bi moom mi nga xam ne dafa yëngu ci njaayum diw ak la ja aju daal dinay teral ki nga xam ne moo di Mamy Cobra yëkkati benn million daal di ko koy jagleel gannaaw ba mu yëkkatee benn million jagleel ko yaa awa rasul ci appel 2024 gi ñu génn moom jooja defati na di ko ca way kott ko koy jagleel baad ko ko jox ko ko ne ko maa ko jox ci way bi nga ma wayal Saint Valentin gi ñu génn Sidi Diop wayal nañu bëggante Sidi Diop ci benn way boo xam ne génne na ko ko muy clip audio bu mu def tuddee ko buum bi buum bi Sidi Diop ma nga cay woy mbëggeel ay paroles yu douce te neex musique bu douce te dal Sidi Diop génnati na fëggati na rëkkati na fu nooy ci Saint-Valentin gi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo bëggante la ñu ko jagleel boobu lépp Saint-Valentin bili mi nga xam ne mooy jëkkër ci Marichou ñaari acteurs yi lee seenub Saint-Valentin nañu ko feete gis nañu ab vidéo boo xam ne bili ci boppam ma ngay reprendre wooy bi nga xam ne waa Ferrer gisee ñooy ñi ko yoon mooy ba ñu naan bàyyi leen ma ma choisir kan lay sëyal moom Billy dafa reprendre boobu le mooy daal ne Sénégal bàyyi leen ma ma sëy ak mari ndax su ma sëyul ak Marie man xaw ma kan lay sëyal moom Billy mu nga yëkkati cadeau itam jagleel ko Marichou woyal ko wayu mbëggeelam ba noppi itam di laaj aw question am naan su ma sëyul ak Marichou kan lay sëyal ñaar ñi nga xam ne itam ñi ngay sëy muy Ngaaka Blindé ak Fatel saw ñoom ñaar itam feete nañu seenu Saint-Valentin Fatel saw ci boppam mooy ki bind ci page Snapchat am di ca tagg ak di ca bàkk ak kañ Ngaaka Blindé di Ndiaye Baba Ndiaye moomu le Fatel Saw xamal nga ko ne ko jërëjëf ci nekk gi nga fi nekk ngir dàq lépp loo xam ne samay rongoñ na fomp nga samay rongoñ ba mu set wecc bégal nga ma yow tamit nag teral nga ma siggil nga ma sagal nga ma ba tey jile ñëpp naw ma man Fatel Saw nga balee na maa ngi lay wax jërëjëf jaraaboot ci Saint-Valentin gi nga xam ne ci la ñu nekk di gën a fësal mbëggeelam ci kaw ki nga xam ne moo di ngaaka blende Pape Cheikh Diallo mi nga xam ne dafay anniversaire boole kook ci bisub Saint-Valentin gi ko mu daal di génn vidéo boo xam moom animateur ba nekk ca télévision Futur Média borom Midi Plus mooy ki ko génneel boppam publier ko boppam di ca joxe ay détaillam ci benn gato bu rafet boo xam ne dañ ko ko jëbal muy gato boo xam ne ci anniversaire am bi ci lañ ko ko jagleel Pape Cheikh ma nga naan xawma ku defar bi la gato waaye jekk na yanj na taaru na gànjaru na moom animateur bi la dafa mel ni kontaan na ci loolee nga xam ne moom la ñu ko defal ki kontaanul mooy Pawlish Mbaye Pawlish Mbaye ci 221 people wala people 221 foofee la daal di toog yekk musiba ak melengaan Zal Mbaye ma nekkoon ca li nga xam ne moo di ca Kazu mbaxal damay togg mbaxal buy wax mbaxal moo xam ne ku ko mos xam ne mbaxal rek laay def saa bu ma mbaxalee ñëpp kontaan ñëpp bég ci sama loxo ndax saf gi muy saf Pawlish Mbaye daf caa amee aw sàññ yekk na leen ca musiba ak mbelengaan nee na ana góor ku ne léegi taxaw takk aw ndiggam naan damay togg mbaxal bis bu ma leen jekkoo fu ma dajee ak ñoom dinaa leen rukk ba ñu nooy dinaa leen jëf-jëf joo xam ne su boobaa dinañu ñu xam ne basi góor moo koy bay moom Pawlish Mbaye tëkku ne leen ba noppi itam di xamal Mame Ndiaye Savon ne ko su ëllëgatee booy jëlati ay toggukat jëlal ay jigéen ndaxte jigéen fu mu takkoo di togg dañu naan jàmbaar dëggantaan a ngoog waaye góor ku takk aw ndigam kenn du ko tuddee jàmbaar waaye dañu koy tuddee leneen lu bokkul ak góor Pawlish Mbaye wàcc na Zal mbay ba zéro ba noppi itam daal leen xamal ni leen fu ma dajeek yéen nangeen ngeen daw ndax bis bu ma dajeek yéen dinaa leen rukk ba ngeen nooy tey tamit nag di ngeen xam ne basi góor moo koy bay moom jëf na rafet moom mi jabaru boos la daal jëndal bee aller ak retour boo xam ne dafa war a dem ngir faj aw tànkam ci benn vidéo boo xam ne moom Mame Ndiaye Savon ma nga cay ne demagul fenn te itam jàmbaar la mu ngi toog ci biir néegu sëyam dafa soxla ku ko dimbali na ma ay a en charge li nga xam ne moo di bee bi aller bi ak retour bi yëpp may ki koy dagg waaye itam maa ngi kuy sénégalais képp kuy bonne volonté képp koo xam ne suñu borom may na la xolu dimbali waa waate ko dimbali na nga ko jàppale na nga ko xam ne moo nekk ci moom di ay tawatam mu daal di mën a denc ci moom moom maam yaay sa moom ma ni nit ku bëgg social la nit ku bëgg a dimbali ay doomi aadama la te lépp loo xam ne gis na ko ci soxlay doomi aadama mu daal di ko ci taxaw ci nu mu gën a gaawee ci dooleem ci alalam ci xameelam ak itamit nag fépp foo xam ne mën na faa taxaw jooytul la fa sab soxla ñu saafaral la ko mu daal di la fay jooytul moom maam Ndiaye Savon borom Serigne Fallou laa yaakaar jëfati na jëf ju rëy bu ko ñëpp ne gongo nekk banlieue gi ak waa 5 étoiles def nañu lu rëy démb ci Saint-Valentin gi ginnaaw bi nga xamee ne foofu ca faay fala ko Sidi Diop feetee ak i ñooñam moom Sidi Diop bu mu yéegee ci kaw seen ba gàdd aw micro dafa daal di woy woy wu neex jagleel ko Wally Ballago Seck ak jabaram ci Saint-Valentin gi boobu lépp woy gannaaw ba mu ko fentee ña fa teewoon ci public ba ñëpp daal di àndandoo kontaan ba daal di bég loolu wan ko Sidi Diop ci kanamam moom Sidi Diop moomulee sax ba mu koy woy mu ngi wane ak xar kanam gu bell te yanj loolu ca woy ba ba noppi itam ko ak yéene génn ko ci biir xolam ba daal di koy jagleel Wally Seck ak soxnaam di soxna Aydara moom Sidi Diop loolee mu def ca commentaire ñu bare bari ñu ngi ko ko yoon bi nga nekk mooy yoon bu baax lu dul jàmm jàmm ko gën aw xay kenn du ko xam ci am réew diggante nit ak nit itam nañ koy rafetal saa su nekk Wally Ballago Seck samak la loo mën ci rafetal rafetalal jëme ci moom moom itam ma nga ci rafetalam loolee mooy li nga xam ne mooy kàddu yu bare bari ci commentaire yi li nga xam ne doon nañ ko xamal Sidi Diop ci commentaire mooy li nga jëf jëf ju rafet la yaa ngi ci yoon bu baax ku mën communiquer communication nga ku mën li ngay def nga te itamit nag ku yaru nga ku yiw nga Sidy Diop wéyal ci yoon bi nga nekk ci gàttal faramaare ni dafa mel ni jamono jilee Sidy Diop loolee mu defal Wally Ballago sekk ñor na leen saf na leen faale nañu ko safoo nañu ko moom Sidy Diop ci jëfam jooju nga xam ne jot na koo jëf digganteem ak Wally Ballago Seck jël ab way jagleel ko ko moom ak soxnaam di soxna ay dara Pape seex Diallo toqal na ay rongo ñu takkoo takku ci bisub am ba gis nañu ko mu koy feeta ak i woon na foofule ak yeneen i célébrité yoo xam ne ña nga woon ci bisu anniversaire am boobule surprise ya ko fa doon defal wax ju baax yi ñu doon wax jagleel ko Pape Cheikh Diallo li nga xam ne mooy kàddu yi rafet lañ ko fa jagleen loolee lépp tax na Pape Cheikh Diallo dafa mujj mujj daal di génn ay rongoñam jooy xaatit la def ci li nga xam ne moom moo di ci anniversaire ba ci ambiance bi nga xam ne moom la ñu ko jagleel moom animateur ba nekk ci télévision Futur Média képp ku yëkkati kàddu rek benn kàddu nga koy jagleel mooy Pape Cheikh nitu jàmm la nitu yiw la nit ku bëgg ambiance nit la koo xam ne du tontonte lu ko waay yekk ci musiba ak mbelengaan du tax mu mere la ca demul ke demul fenn yóbbuwul kenn police mbaa muy jëflanteeg nit ñi ci ak te du ñàkk fayda Pape Cheikh doo ko seen ci lu dul aw liggéeyam ba noppi itam fonk ko bëgg ko gëm ko tey dimbale ay jaamu yàlla ci li nga xam ne moo de ab dooleem Pape Cheikh Diallo loolee lañu ko xamee waaye xamewuñ ko lenn loo xam ne jëfi ñàkk fayda la ak la ca aju Pape Cheikh moo taxit ci bisu anniversaire am ba yi nga xam ne gars yi seedal nañ ko ko wax ju baax jañu ko waxal kada yu rafet yañu ko jagleel surprise dañu ko fa defal moo ko mujj ëpp doole ba mu toqal fa ay rongoñam góor yi jigéen jigéen lu astaxfirullah góor ñi nga xam ne dañuy faral di jëf jëf yoo xam ne dafay méngoog jëfe jigéen bañ leen di tuddee ay nit ñoo xam ne ay borom ñaari tur la ñoom mbaa sax di ko njortees ci ñoom loolee mu ngi bëgg sëxiñ fii ci senegal ci ak seetlu goo xam ne jot nañu koo def am na góor ñoo xam ne daanaka bu ñuy wax dañuy riijoo ko biijo bu ñuy solu dañuy sol col ko xam ne doo sax comprendre am na ci loo xam ne itam bu ñu koy def jëfi jigéen lay doon bu ñuy dox itam da ngay séentu ci ñoom ne ay jigéen ñuy dox la loolee lépp dañu ko daal di seetlu fii ci Sénégal donte ni sax ñu bare bari nanguwuñu leen a joxoñ baaraamu tuuma naan ay borom ñaari tur lañu waaye ñu ngi koy njort ci ñoom ñenn ñi di ko dëggal naan ay borom ñaari tur lañu koo ci gis muy jëf-jëf ji ni mel jàppal ne bu yàggee dana orienté wu ci ñooñu le te sax nag góor loolee moomu ko góor li ko war dëggantaan moo jëf-jëfi góor dox doxi góor wax waxi góor tey wax te nekk ci yëfi góor ba noppi itam di sol col kak góor melokaanu góor jigéen itam ñu bañ koo séntu ci ay góor jigéen na mel ni jigéen loolee mooy li nga xam ne mooy li neex suñu borom waaye foo fekk góor boo xam ne dafay jigéen jigéen di sol colk jigéen di toog ci jotaayu jigéen di wax wax ju jigéene mbaa di jëf ay gestes yu jigéene di jëf jëf joo xam ne jigéen mooy li ko moom loolee góor gu koy def itam alku nga yàq nga sa bopp yaxeet sëriñ Modou Kara Mbacké daa takk ab soxna moom sëriñ Modou Kara benn taalibe bu tudd Nabou Kara la daal di jël ci week bi ñu génn dibéer gi ñu génn lañuy daal di fas tas boobu lépp sëy moom sëriñ Modou Kara Mbacké ab taalibeem la daal di xool ba mu doy ko mu jël ko def ko aw soxna ngir mu ñëw daal di koy sëyal ci sama kàddu waa Blabla TV ñi ngi koy ñaanal sëy bu barkeel moom sëñ bi Mbacké moom ak ki nga xam ne moo di bu Kara madame Mbacké beneen mariage ñu ngi koy waaji waxtaane foofu le ca Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar jaara seen petit gàlle moom mi nga xam ne bokk na ci actrice yiy faral di jouer ci yenn série bokk seen petit gàlle bay am ca télévision Futur Média waa Prince Art di ko amal fii ci Sénégal moom jaara seen petit kenn ku ne gis na carrière am mu ngi koy doxal boobu ba tey moo xam ci wàllu musique la moo xam ci wàllu cinéma ak yeneen série yi nga xam ne ñu ngi ko jey seen moom soxna soo see di jaara soo wattandikoowul dibéer gi ñu jëm wala ci weekend gi ñu dëgmal danañ ko daal di may boroom kër su ci yàlla àndee yàlla na sotti ak jàmm ñu ngi koy souhaité heureux moom jaara bu seen petit yàlla bu ca dugg itam juróom ñaari million benn kër boo xam ne R plus 6 la ak oto bu bakkane moom la Pape Makhtar Sall yëkkati teg ko ci loxol way juróom bu jigéen daal ko koy teralee ngir li nga xam ne moom la ko defal moom Pape Matar Sarr gannaaw ba mu bàyyi ko ci coupe d'Afrique gi ci la yëkkati jooju lépp teraanga jooju le teraanga gi nga xam ne teraanga ju takkoo takku la wan yaay ji ne ko yaa tax ma am jile teraanga yaa ma ñaanal yaa ma teete yaa ma dimbali yaa ma aar yaa ma def ni ma mel tey fépp fu mu mën a àgg ci àdduna yaay ki tax yow yaay moo tax sama teraanga balaa kenn di ko lekk yaa ko war a lekk ndax fekke ko moo tax kër boo xam ne air plus 6 la jagleel ko ab wata su rafet ne ko yaay booy jëlal dundal te bu la dara stressé yaay booy lépp loo joxoñ ma daal di koy dagg jëfam joojule moom Pape Matar Sarr ñu bare bari ñi ngi koy magnifier naan ñi kott la doom su amee su màggee faw rek dafay teral yaay ja mbaamu xarab yow Pape Matar xaraboo dangaa teral sa yaay te loolee dara du ko dindi loolee mooy li tax senegal gi yëpp àndandoo gàddu seenu ñaan di ko jagleel Pape Matar Sarr nan ko jara jërëjëf yàlla na gën a mën yokk ku ba lu yéeme te doy waar la ñu gis ci benn titre boo xam ne njàpp zoo la ñu ko defal defal ko bonne nouvelle njàpp zoo en gros sur une lesbienne muy mbir moo xam ne lu jaaxal ñu bare bari la njàpp zoo mi nga xam ne ancien fecckat la ca Sidi Diop jamono jile mu nekk ci Wally Ballago Seck di fecc ak waa Ramdan moom njàpp zoo moomulee la Adamo boss des négro génneel benn vidéo boo xam ne ma nga cay wax naan njàpp ci boppam dafa daal di ëmbal ab xale bu jigéen ba noppi itam jamono jile di ko ngénte maanaam li ñu def dafa mel ni jàppewuñu ko bàkkaar jàppe loo xam ne jëf la joo xam ne jëf ju ñuy bàkkoo la jëf-jëf joo xam ne lislaam àndu ci kenn daganu la ko rafetul baaxul jekkul jaaduwul yellul ba noppi itam ñu wéyal ci li nga xam ne moo di ci seenub caaxaan naan dañu koy ngénte ak di def moom mi di aadamoo yekk na ca musiba ak belengaan ki nga xam ne moo di jàpp soo nee na dëgg la naam man aadamoo samay kàddu saa su nekk da ngeen koy ñaawlu saa su ma waxee rek ngeen yekk musiba ak belengaan ñenn ñi ànd ak man ñenn ñi itam di ma xarab lu nekk ñu wax ma ko waaye terewul tey jii war ngeen mën dëggal samay kàddu ndaxte njàpp zoo li mu def dara ci rafetul xale boo xam ne danga nga koo ëmbal lewu la takkuloo ko demu leen ca jàkk ja amut benn kilifa goo xam ne moo dox ci seenub diggante nga ëmbal ko ba noppi itam daal di koy ngénte loole man musuma koo gis man aadamo sariya daf koy tere lislaam daf koy tere yàlla bëgg ko aadamo Boston Negro nee na njàpp zoo ci boppam laa bëgg mu delloo si xelam yéen waa Sénégal wax leen ma lii ana naka la baaxee ana naka la gënee ana naka itam ngeen koy jàppe yëf yi dafa doy waar aadamo Boston Negro démb démb wax na lu doy waar ci vidéo boobule ba noppi itam dal di tegaat njàpp zoo ci palaasam bisu ngoon na ci palaasam ga mu nekk ci 2STV bi confrontation gi mu doon amal di def ci li nga xam ne moo di spécial Saint-Valentin bisu ngoone gis nañu ko mu sol col ak amour maanaam rouge ak noir la def ba daal di noppi gàddu ab fleuram ci page Instagram ci la daal di posté aw photo moom kott moom dong àndu ci ak kenn ci ñi nga xam ne dañoo bëggante ci boobu lépp jamono ñoom ñu ngi posté seeni photo ànd ci ak ci ak ñi nga xam ne ñoom la ñu bëgganteel waaye biisu Ngoné moom ab fleuram la daal di jël daal di koy kott def ko xaritam def ko mbëggeelam mu mel ne moom Bijou ngoonee gannaaw bu mu génnee ci ñeenteelu sëyam ba ma ngay joxaat xolam keneen wala sax noppi na ngir jébbalaat xolam bi keneen koo xam ne su ko bëggee mu ñëw ñu daal di seq amour ñoom ñaar maanaam bëggante ba sëy mën caa dox ci seenub diggante ñoom ñaar njàpp zoo ak ndey njaay bànna yaa jamono jile dafa mel ni kenn gisatu leen kenn déggatu leen dafa mel ni gars yi ñu leen di bëgg a fàtte ginnaaw nga xamee Thiago Seck mu ngi ci aw dëjëm di jooy yaayam ja jaaga te noppeegul ak Momy Seck mi nga xam ne wuy jëna borom moom Wally Ballago sekk dafa mel ni ca la jaare pose ay yëfam dematul dikkatul waxatul génnatul deful ci lenn ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu seen bi tax na njàpp soo ak nday jaay bànn ya ci ginnaaw tuuti laata jaaga di wuy ji boromam ñoo fi gënoon xew site internet yi footu na ci réseau social bi ñoom la ñu daan waxtaane nday njaay bànn ya am njàpp li nga xam ne di ko waxtaane ci Sénégal tax nañu amoon buzz bu doy waar waaye jamono jile ñoo gën a xewi Finlande maanaam Finlande lañ leen far yóbbu ñoom ñaar ñooñu leen kenn déggatu leen kenn gisatu leen ndax seen waykat bi taxoon ñiy fës ak di feeñ muy Wally Ballago Seck kookee dafa nekk ci dëj jamono jile talul sax di yëngu ak di yëngal di yëg ci kaw seen yi ak di wayka def yëf Wally Ballago Seck lépp la teg ci suuf ma teg ci suuf jooju la wax te dem ci rakk ay dara ak ki nga xam ne moo di di jëx sa dafa mel ni ñoom yu bare bari ñu ngi njoxtu ci seenu diggante li nga xam ne moo di mbëggeel ci plateau Abanos Xees foofee la ñu daal di ànd taxaw fa ñu bare bari di njoxtu ne ñoom ñaar ñooñu le am na lu ñu sekk ci wàllu mbëggeel am na lu ñu sekk ci suufu suuf loo xam ne waxuñu ko benn mideef maanaam leeral luñu ko ñi nga xam ne ñoo di doomi aadama yi tax na moom mi di Abanos Xees ba mu leen dalalee ca plateau ba ñu bare bari ci commentaire yi ñu ngi leen koy jiiñ naan diggante ñaar ñi le war nañu koo seggaat mbaa sax ñoom ci seen dimi bopp ñu leeralal ñu ndax jamono jile dafa am am lu ñu seq ba tax na saa su nekk ñu am complicité bu doy waar bi nga xam ne moom la ñu am lu doy waar la xewoon ci Liberté 6 ci jamono yee ñu génn muy ab gaz boo xam ne dafa daal di exploser ba benn mag akub xale daal di cay ñàkk ba kanam benn jigéen joo xam ne dafa dafa toll woon diggante tiit ba daal di tëb ci étage ba wadd ci suuf ñu rawale ko ci l'hôpital ngir fas yéene woon jot ci bakkanam mujj na wuy ji boromam ki nga xam ne moo di sëram génne na wax wax ju daw yaram nee na ñàkk naa sama yaay ñàkk naa ci sama doom sama sœur boobee nga xam ne dafa daal di ëmb wax na lépp ak ni mu demee circonstances yi ak naka la gaz bi def ba daal di exploser loolee lépp moom ndaw si lee ñëwaat na ci muy kaddu yi daw yaram yoo xam ne daf ko daal di génne ku ko déglu faaw rek nga toxal ay rongoñ ndax yëf yi na mu demee lu doy waar la te daw yaram waaye suñu borom moom buy dogal xamut lu gën mbaa sax loo xam ne waru koo def lu jot la xam daf koy daal di def fasaasa daal di jàll ci leneen ma jàll ci Sidi Diop mi nga xam ne génn na kilibam boobee da koy génne gawar na gannaaw bu mu génnee clip bi nga xam ne ab audio la leeral ko nit ñi di ko déglu Sidi Diop def na clip bi clip boo xam ne daf ko def ci réalisation bu doy waar réalisation bu set wecc réalisation boo xam ne amul benn sikki sàkk ci ne gonek banlieue gi jamono jile mu ngi gën a màgg ci wàllu musique mu ngi gën a am doole ci wàllu musique waaye tamit nag xelam ak xam-xamam mu ngi gën a màcc ci jëm ci wàllu musique te entourage am itam ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib ngir carrière am bi moom Sidi Diop salaam réew mi jàmm ak salaam mu ngi fiy dox ginnaaw bi nga xamee ne conseil constitutionnel jël nañu aw cëggal guy ni ki dem ngir maintenir at élection yi ci li nga xam ne moo di fii ci Sénégal ci nu mu gën a gaawee gannaaw bu ñu jëlee seenu cëggal guy kenn ku ci nekk yaa nga ca yëy ak di ca yàbbi président Macky Sall tey la daal di génne ab bataaxal bu génne ca présidence la république buy firndeel ni njiitu réew mi gis na li nga xam ne moom la waa conseil constitutionnel dogal te loolee moom njiitu réew mi nangu na ko dana fexe ba daal di jëfe li nga xam ne moom la ñu wax mu fexe ba élection yi am ci nu mu gën a njiitu réew mi loolee nga xam ne jot na ko def kiwin biis daf ko daal di rafetlu ba daal di koy posté ci page Facebook am tuddee ko réponse bu baax bi kiwin biis mel na ni ko ànd ak njiitu réew mi ci li nga xam ne mooy décision boobu yi nga xam ne moom la nangu ci waa conseil constitutionnel ba fas yéene taxawal election yi ci nu mu gën a gaawee waxtaan ci ak ñi nga xam ne ñoom la ko war a sëkkal tax na kiwin biis waykat bi nga xam ne jamono jile ñu bare ko xam ci wàllu politique dëggal na président yëkkati na ko teg ko ci décision bi góor jigéen képp ku ko lekk jàppal ni yàgg góor jigéen ñi yéen a yem oustaz Iran Ndaw àdduna ci coow li nga xam ne moo dox ci diggante Zale Mbaye ak ki nga xam ne moo di Mame Ndiaye Savon ci màggalu Kazu Rajab gi ñu génn daf caa invité woon Zale Mbaye mi nga xam ne moo fa nekkoon di wi jooko riijoo ko di wax ni damay togg maxal takk ndigal la yenu cin la ne maa ko fas yéene riij tey ba mu baax maa ko fas yéene rigal ñëpp lekk ci te itamit nag xam ne jot na ko wax moom Zale Mbaye mu wër ci réseau social bi kenn ku ci nekk am nga ci gis-gis presseur bi di oustaz Iran Ndaw ma ca seen TV daal dina ci àddu ci seen YouTube ya ko fekk ji woon foofule dëkk ko seeni micro laaj ko ci yooyu le kàddu moom oustaz Iran li mu ci wax lu leer la góor jigéen nekkut loo xam ne l'islam da koo gërëm l'islam bëggul góor jigéen yàlla suñu borom ci boppam moo ko xaraamal am na loo xam ne nag jekkul rafetul ci diggante góor ak góor ñuy séq di sëy ci loo xam ne rafetul te itam baaxul loolee dara kott nga cay jëlee bépp góor boo xam ne dafay see góor ni moom rey mooy la ca dagan moom oustaz Iran Ndao nee na képp koo xam ne itam lekk nga ñamul góor jigéen goo xam ne leer na la nañ ne biir na la ni góor jigéen la mu jox la nga daal di lekk daanaka mënees na leen a boole yéen ñaar ndax yéen a yem kott yéen a yem benn atte moom oustaz Iran Ndao ma ngay soññ ki nga xam ne moo di Mame Ndiaye Savon di ko xamal ne ko lu baax soo koy def soo bëggee lu baax loolee gën a way nekk lu baax di wéy ci lu baax te tamit nag ñu nangu ko muy lu baax na nga ca seet na loo xam ne bul ko ca dugal te bul ko ca boole moom presseur bi re dénk na ki nga xam ne moo di Mame Ndiaye Savon nee na man nag samay kàddu du ma ko teg ci ma xel du ma ko teg ci li jamono di wax waaye dama koy teg ci li nga xam ne charia ci boppam mooy li ko daganal charia ci boppam mooy liy xaraamal charia ci boppam lay topp yoon bi nga xam ne moom la ñu tëralal ndax yoon boobule kenn waru koo wàcc soxu bébé ba mu fi wàccee yoon bi ba yéegaat ba tey kilibam bi mu fi génne woon ñu naan ko niira de maga ca 14 millions ci ay vues yoo xam ne ay doomi aadama jot nañu ko ko visité ci la nga xam ne moom moo di ca plateforme ba ñuy tuddee YouTube moom Sokhou Bébé mi le ma ngay waajalaat beneen clip boo xam ne def na teaser bi ba daal di koy publier waaye turu clip ba xamle su ko ba léegi moom Sokhou Bébé daf koo daal di nëbb waaye daal joxe na ab teaser am tey tamit nag clip boobu le soo wattandikuwul dana tojo ci jamono dana yëngalati jamono tey tamit nag dana def lu neex lu neex moo fekk ci Khalifa rappeur Khalifa rappeur activiste bi rappeur bi xam ne ñëpp xam ci Sénégal Khalifa Rappeur daa nay tudd taawam bu góor bi gane jamono moom Khalifa Rappeur ci ngénteem boobule daa dina cay rendre hommage baayam di maître Khoureyssi Ba jël taawam bu góor boobule daa di ko koy tuddee ngir sàkku ci barke bi ak itamit nag lépp loo xam ne xéewal la mu daal di tàbbi ci doomam googule ci sama kàddu Blabla TV ak mboolem ñu fare ci rédaction bi ñu ngi koy ñaanal tout tànk boobule yàlla na màgg te am barke yàlla na màgg te am ndey ak baay yàlla na màgg te am wërsëg yàlla na màgg itam jariñ réewam te jariñ diineem concert Diop bi nga xam ne moom la ñu doon amal ca Mbour foofule benn concert boo xam ne Sidi Diop dañu ko fa invité woon muy ngénte soo xam ne ka ko doon ngénte ci boppam moo oolu Sidi Diop ne ko sama xarit nga sama lépp nga bëgg naa nga teew ci sama ngénte defal ma fa ambiance Sidi Diop ba mu ñëwee ci ngénte loolu le yéeg ci kaw seen ba soppi ko ab concert ñu koy tëgg mu neex loolu le mu def fa ambiance bu amul fenn ci la ñaari defkatu ñaaw ñaawteef dugg ci biir mbooloo ma raaxaloo seeni paaka di ko jëflanteeg ñi nga xam ne ñoo nekkoon foofule jëflante jëflanteeg ñoom taxoon na amoon na mbër boo xam ne moo fa nekkoon téye téléphone am di filmer ci la ñu jëflante ak moom mu daal di leen di duma dóor leen ci lañ ko fekk fa mu nekk moom itam daal di koy faat jël bakkanam moom mbër moomu la ginnaaw ba ñu ko faatee jël bakkanam ka ko faat itam ca saasa la ko gars yi sëxatoo jëf ko li ñu koy jëf kenn ka daal di daw ka ca des itam jaar ci beneen côté kenn ka nga xam ne moom lañ ca jot a jàpp keneen ka daal di daw ka daw moom dañ koo daal di seetiwaat ca ëllëg sa fekk ko fa mu nekk ndax kañu jàpp ci boppam mooy ka koy yoolee xamal leen ni leen sangam su ngeen fa demee di ngeen ko fa fekk ñoom ñooñu le gannaaw bu ñu jàkkaarloo ak monsieur foofu la ca Mbuur daal di nañuy wax ci li nga xam ne moom la ñu def waaye la ñu wax moom moo di ne jubluwuñu ci woon li nga xam ne moo leen ci fekk tey jilee seeni avocat di leen layal di wax ne mbir mi xeex kottu la woon waaye amul woon jubluwaayu ko rey kenn mbaa sax di fa nasaxal lenn mbaa di fa tuur aw bakkan ba fay gindi ay deret ak la ca aju seeni avocat nag la ñuy sàkk mooy na leen yoon mën a woyofalal daan yi maanaam bu daan yi metti waaye procureur moom loolee lay bañ a dégg procureur ba mu jàkkaarloo ak ñoom dafa ni monsieur le ñaar ñi li ñu def dafa bon dafa ñaaw di ci ko ju rafet te waree su ko cautionné kon nag li may ñaan ci yow yow monsieur le juge na nga leen tëj seen giirub dund tubaab di ko wax perpétuité mi yaa gise moom ci jamono joojule ma ngay fecc aka nagar wala ci benn sonwu séeréer boo xam ne jamono jile soo duggee ci tiktok bi moo ko fay toj boobu lépp son gis nañu mi yaa gise itam ni ko ñëpp reprendre di ci def ay moom itam di waykat bi le def boo xam ne daanaka Mia lépp luy parole ci biir waay boobule daf ko maîtriser ci biir waayam boobule ma nga ko cay reprendre di def benn challenge moom itam jàkkleel ko sénégalais yi Abdou Guité génn na benn clip jàkkleel ko sénégalais yi tuddee ko dund gi jafe na moom Abdou Guité Seck waykatub Saint-Louis bi ndax ndax bu mag bi daal nay génn clip boobee nga xam ne mu ngi tudd dund gi jafe na ci biir clipam boobee ci biir waayam boobule mu nga cee tudd secteur yu bare bari fii ci sénéga napp gi secteur privé bi ak ñeneen ak ñeneen njàng meek wàllum paju wàllu liggéey yi nga xam ne yenn senes ñu ngi koy liggéey ci Sénégal fépp la daal di évoqué daal di wax ak état du Sénégal xamal leen ni leen lii nga xam ne mooy dund gi jafe na nit ñi ñu ngi liggéey waaye lépp lu ñu liggéey yemale ko ci lekk ak naan akum paju te taxul ñu satisfaire seeni i kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a jiite lu ngeen mën a wàññi na ngeen ko xeeb lu ngeen mën a liggéey ci dund gi mën a wàccaat ba ci suufu suuf na ngeen ko xeeb ci clip boo xam ne clip bu original la image yu set te leer Abdou Guédé Seck di génn ay paroles yoo xam ne message moo ca fees dell moom waykatum ndar ndar bi le parolier de la musique sénégalaise le poète daal nay génne ci fëggati fu nooy jàkkaleel ko sénégalais ci jamono ji nga xamee ni ñëpp a ngi ko yuuxu naan dund gi dafa metti ci la ko daal di génnee lancé ci aw message am daal di wax ak ñi nga xam ne ñoo di autorité yi ngir ñu gën a yolamal seeni loxo ngir seenu askan TFM jël nañu ndaxte loo ndaxte moom mi nga xam ne bokkoon na ci seen petit gàlle Bartelo gannaaw seen petit ba mu bàyyi ko dafa dem daal di jawwali ca formation journaliste génn na ca daal di ñëw ca TFM fas ne bokk ca ñuy animé animé émission yi nga xam ne moo fay am émission ba ñu ko njëkk a diis mooy émission seetu bi mu cay bokk ak ñoom Mado ak concert googule ngir fas yéene wane boppam moom Bartelo mi la ci mbirum journaliste gannaaw ba mu génnee ci ndagar ak wàlle ga muy way ga ñu ko xamee woon ca fa nga xam ne moo di ca seen petit gàlle festival international Chant des Linguères ca Bamako ko ko fa yóbbu mooy doomub Sénégal mondial bi la diva Kumba Gawlo yi fàkk tëdd gi jël na ab festival bu mag a mag daal di koy yóbbu ca Mali waaye ba mu demee ca Mali waa Mali ci boppam dañu ca kontaan ci indi gi mu indi festival bi ci seen biir dëkk festival boobu le dañu ko daal di jox gëdd ba tax na ci seen conseil des ministres waxtaane nañu ko bokkoon na ci tomb yi gënoon a fës yi ñu fa waxtaane ngir mën a dooleel Kumba Gawlo Seck ba noppi itam président ba nga xam ne mooy ko fa nekk di Assimi Goïta i ngërëm di ko xamal ne ko ndax nga tànn Mali kontaan nañu ci bég nañu ci tey tamit nag dinañ ci jàpp ba yi fi daal di yemb lépp luy communication danañ ko daal di def lépp loo xam ne ay moyen la danañ ko teg ci sa loxo yow Coumba Gawlo Seck doomub Sénégal ba ma ngay représenté Sénégal ci Afrique moom Coumba Gawlo Seck te Sénégal sénégalaise bu mag bu mel ni moom ñëpp ko war a roy ñëpp ko war a tingoom ba ca kaw a kaw ne ko jaraaboot jërëjëf ci sa liggéey bu rëy bi nga xam ne door nga ko sumb nga ko